gan gi Clédor Sène la mi ngi ak ñun euh, ci euh, jokkokaay bi ñu ngi lay nuyu Clédor Sène am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di fay. yow yaa jiite mouvement Claire Vision gindi askan wi ràññeeku lool ci xeex bu ñeel euh, yorin wu sell ngir euh, ressource naturelles yu Sénégal bokk na ci pétrole gaz ak euh, yeneen yu ni mel Transparency International daal di wax ni dana fexe ñu ubbi ay enquête ci juróom-benn réew jëm ci contrat pétrolier yu Sénégal loola lan la tekk ci yéen. waaw loolu euh, prolongement wu dossier Petrotim tim la rek bi nga xam ne justice Sénégal daf ko nangu wut a leeral ndax li ci rakku euh, président de la république ak président ci boppam impliqué ak seen tubaab bi ñuy wax Frank Timis bu ngeen xoolee euh, kayitu Transparency International bi affaire u guerre lañ ci tuddu corruption ci ñaari blogu pétrole muy Saint-Louis ak Kayar offshore bi nga xam ni yëkkati nañ ko ba tàyyi te du dossier boobu te gërëmuma ci Euh, Birahim Seck euh, ak ñi mu ci àndal yëpp euh, déposé woon Babacar Mbaye Garaaf ak ñoom ñëpp déposé woon plainte au niveau de l'OFNAC loolu la le la la Birahim Seck ba ci Transparency International bi nga xam ne partenaire la ak Forum Civil ba ñu am tey pour ñoom ñu ñu ñu saisir ay tribunaux ci juróom-ñett juróom-benn dëkk yu wuute pour ñu leeral mbirum Petro-Tim parce que. Frank Timis roumain la australien la en même temps australo-roumain la moo tax ñu tuddi ko Australie ak Roumanie ak Singapour Malaisie ak États-Unis donc dëkk yi nga xam ne ñi ci impliqué wu yëpp ñu nga ca Sénégal rek lañ ci tëb parce que fii justice dafa joxe non-lieu pour aar euh, rakku président ak pour tëj dossier bi mais lii da lay wan ne ala kulli aalin mbir mi dana leer fii wala ci biti parce que bitim réew dañu am ay kuréel yoo xam ne dañuy toppatoo mbirum transparence ak guerre ci wàllu ay contrat minier ak pétrolier donc ñooñu seeni société dañ leen di côté en bourse te am na loo xam ne ñu leen ko hmm. te dossier bi dafa bëri ay jalgati yoo xam ne dafa commencé ci ci président Macky Sall bi nga xam ni inspection général d'État daf ko ne ñaari dëkk yi nga signé baaxul annulé ko retiré bloc yi donc loolu mooy continuer nii ba léegi président Aziz bu Mauritanie loolu lañ ko tëjee kaso euh, ci dëkkam téye nañ ko donc lii dalay woon ni ñoom bu ñu fi jógee mbir mi dana dana leer à la kulial mhm. li nag bokkul ak yeneen plainte yi nga xam ne euh, collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers boo xam ne dañ ko sos pour euh, topp ñi nga xam ne dañoo dañoo téye suñu alal jàllal ko euh, déposer na ko au niveau des États-Unis ak Angleterre te plainte yooyu tamit ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax a baax ñu ngi évoluer bu baax a baax a baax a baax day jékki-jékki rek ñu këtt ni jon dal suñu kaw parce que lu nekk en cours la loo xam ne mu ngay dox la parce que justice euh, au niveau international dafay imposer wu ci état yi donc ñun loolu la ñu comprendre moo tax euh, am na benn groupe bu ñuy wax Petrol Team team avec EAM comme équipe mhm. euh, ñoo ñoo sos collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers des avoirs miniers et pétroliers plutôt ñoo xam ni dañu déposer plainte également comme ni ko Transparency International defee te loolu yëpp nag incha allah dina aboutir ci lu lu lu yàgg dara. Mhm. ci plainte transparence si lan la ñu ciy mën a xaar ci cëppaandaw la lan moo mën a nekk ak yéen lan ngeen ciy séentu surtout. Euh, liñ ci njëkk a séentu mooy ñu neenal contrat bi parce que Cosmos ci boppam moom xam na ni li mu jënd baaxu commencé na jaay ay actifs mais BP comme dafa am enjeu pour briser monopole euh, russe ci gazu Europe bi dafa jël risque jël 60 pour cent te lépp luy lang ci actif da koy jënd mais moom enquête BBC bi nga xam ni dëkkam la jóg wone na ni la mu jënd baaxul parce que anam ba ñu joxee bloc yi euh, dafa jàdd yoon parce que respecté wuñu euh, euh, article huit bu code pétrolier bi parce que ñoom Frank Timis ak Aliou Sall amuñu capacité financier et technique pour am bloc yooyu foofu la jalgati bi njëkkee njëkkee nekk rawatina nag ñu koy jaay ci anam boo xam ne jaay bi sax dafa jaarul yoon donc bépp li mu jënd baaxul liñ ñu ciy séntu mooy ñu retirer purement et simplement comme ni ko recommandation IG bi waxee euh, contrat bi contrat boobu soxna si baaxul. mënul hmm. mënul mënul sotti ñoom ñu ngi def seen ay travaux ñu ngi nekk en phase d'exploitation euh, ñu ngi installé plateforme yi pour pour pomper bi président Macky Sall dem na dem na dem na dem na euh, keroog ba mu naan day essayé ji avion Mauritanie du woon loolu. dafa signé ji woon benn contrat boo xam ni contre intérêt Sénégal la encore ci même blogu blogu Saint-Louis ak pet euh, Kayar bi nga xam ne euh, euh, plateforme bi nga xam ne moo nar a ngacc gaz bi foofu au mu ñu ñu koy ba dans dix ans mu nekk moomeelu Sénégal comme ni ñu ko ni ñu ko prévoir woon dañu ñu ñu koy loué ba abadan di ci fayeeku xaalis ba abadan loolu la président Macky Sall demoon signé ji nga xam ni beneen beneen jalgati la doo xam ne c'est contre les intérêts du Sénégal kon ala kuli alin lii moom dina leer euh, sur le plan international te ñoom bés bu ñu fi jógee dana àgg ci nañ alors euh, bu weesoo pétrole ak gaz euh, yéen a ngi wax itam lu bari ci zircon surtout yow Sénégal. Mhm. Euh, ñu mhm. gis ci ay xibaar ne ñeenteelu gisement bu gën a am solo moo ko am sànq wax nga ñetteel bi lañu sax kon mu wane ni mhm. mbir mi gën naa am solo waaye itam gën naa bari xëy na ni ko ñu bari foogee bala ñuy ñëw xëy na ci li zircon représenté tey ci wàllu enjeu loola ñu bari di ko dégg te xamuñu lu moo zircon loo ñu ci mën a wax tey nii loo xam ne it mu ngi ci suufu Sénégal. waaw zircon euh, benn xeetu minerai la bu ñu koy bu ñu bu ñuy wax euh, sable titanifère wala métaux lourds euh, zircon dañ koy jëfandikoo ci wàllu industrie yu bëri ñu bëri ñu yore seen téléphone tactile bi écran tactile bi loolu la ñuy wax verres spéciaux zircon la parce que écran boobu moo mën a connecté wu ak ay ay logiciel ak yooyu bute ak seetu wala vitre ba nga xam ne wala sa kaas bi nga xam ne bu woddee sax bu tojee day tasaaroo alors que sa téléphone bu woddee mën na toj sax mais du tasaaro te mën na sax bañ a toj donc c'est un spécial boo xam ne moom la ñu ci ordinateurs yi ci télévision écran plat yi ci tableau de bord avion yi ci lépp loo xam ni tactile la parce que euh, dafa dafa digitronique maanaam sa loxo da koy impulser da koy da koy déclencher da koy defloo ay rôle am na beneen xeetu zirconium boo xam ne euh, zircon bu bu mel ni suuf bi moom la ñuy togg mu nekk ak wëñ gu weex goo xam ne dafa supporter tàngaay trop Euh, li mu supporter tàngaay tax na parce que ba ba mille neuf cent cinquante degré du taaweeku lu ruy donc moom rek moo mën a dem ci euh, lu lu tàng comme réacteur avion nga xam ne day tàkk sax nga xam ne wañ yi koy fixé sax dafa waral loon un métal spécial hmm. ba noppi conducteur te la tamit en même temps ngay jàllale courant comme bépp xeetu wañ nga xam ni même sa tableau de bord sax di nga ci mën a am ay paramètres de vol ci euh, endroit bu tàng bu mel ni réacteur hmm. Euh, donc ci industrie aéronautique tamit euh, ci wàllu fusée wàllu satellite wàllu centrale nucléaire surtout euh, daf ci am importance parce que ñeme gi mu ñeme tàngaay li ko tàngaay dul def dara moo tax moom mooy mbar bi nga xam ne ci biiram la ñuy def uranium bi alimenté centrale kii nu mu tudd nucléaire yi nga xam ne boo amul zircon munoo munoo munoo munoo démarrer benn centrale nucléaire sans zircon centrale nucléaire du tàkk kon zircon am na solo tey ci àddina. am na solo lool lool lool industrie ak technologie de pointe yu bëri bëri bëri mënut a ñàkk zircon wala zirconium parce que mhm. même même xeet bi rek la. waaw donc Areva. Mhm. tubaab yi ñoom ñoo ci teg loxo Tizir ak Eramet. parce que dañu joxoon permis bi euh, australien mais ñoom ñoo nañu fexe ba bokk bokk ci moo tax mu tudd GCO donc vingt cinq pour cent li Union européenne di consommer ci wàllu zircon minu jog bii lay jóge boo xam ne nekkul quatrième mais troisième producteur mondial la. Mhm. alors Sénégal est-ce que mi ngi gis boppam ci exploitation bi. non non non Sénégal gisul boppam ci exploitation bi parce que d'abord quantité yi ñuy exporté bokkul ak quantité yi ñuy déclaré parce que 2014 directeur des mines dafa ñëw ni 7000 mille la ñu la ñu la ñu la ñu exporté alors que ci convention bi 80 000 tonnes la ñu la ñu bind. te li ñuy exporté réellement ëpp na sax quatre-vingt mille tonnes booy xool train bi lu muy yóbbu parce que mos naa ci def reportage muy benn ñaareel bi. ci prix bi ay un dollar et demi la lañ koy euh, le kilo lañ koy jaayee euh, parce que dañ koy jaay noonu rek sans aucune transformation léegi loolu duñ duñ ci gis suñu bopp rawatina nag euh, ci taxe yi maanaam code minier lañu ne Sénégal li muy produire yépp ci minerai ci ressource naturelle dix pour cent rek la ci am doxandéem bi moo am quatre vingt pour cent bi ci des ba noppi lu fay taxe kon loolu mënuñu cee gis suñu yo bos suñu bopp benn yoon parce que du ñu transformé dañuy dañuy baale taxe ba noppi suñu alal 10 pour cent lañ ci am kon yooyu la ñu war a seetaat maanaam suñu texte de référence yi nga xam ne ñoo moo moo ñuy néewal néewal doole ci wàllu part actionnariat bi loolu euh, loolu vraiment euh, lu ñu war a lu ñu war a dindi la ci mu gën a gaawee Sénégal. justement ndax combat la bu ngeen nar a engagé ngir booba contrat yi ñu xoolaat ko wala sax ñu nii ko. mais mais bien sûr combat bu ñuy war a engagé la te combat bi mu ngi njëkk mu ngi njëkk nekk au niveau de l' assemblée nationale bi nga xam ni foofu la ñuy voté loi yi parce que Senghor mu ngi doon jooy euh, bi fekk parce que bu njëkk 51 pour cent la la la la tubaab yi amoon ñun ñu am pour cent parce que ñoom nee nañu dañu waroon jiite conse d' administration moo tax ñu war ñu nangul leen ko. Hmm. mais bi ñu demee ba feeru Sénégal bi feeñ euh, euh, tubaab yi dañu ni léegi ñun 35 pour cent rek la ñuy am ñoom ñu am 65 pour cent Senghor doon ko jooy naan la détérioration des termes de l'échange baat boobu moo ko génnee détérioration de terme de l'échange Abdou Diouf ñëw yóbbu ko 10 pour cent ñu bàyyi ko fi ba léegi kon loolu au niveau de l'Assemblée nationale la ñu war a rééquilibrer les termes de l'échange ba nga xam ne Sénégal dina am au moins pour cent de sa ressource loolu koom-koom buy dugg vite la ci ci ci ci ci gafa Sénégal plus ñu dugg dans la transformalisation et et, et dans l'industrialisation euh, wañ gu weex googu ñuy wax zirconium mais mën nañ ko togg fii ay ay ay four à métaux rek la ñuy la ñuy la ñuy installé hmm. respecter norme ISO yi ñi ñi nga xam ne ñooy soxla pièces yi ñoo ñooy joxe seen norme ñu liggéey ko fii même en partenariat technique ak ñoom ñu am ci dara donc noonu la réew di suqalikoo di jëriñoo ci li mu am ci alal donc loolu suñu combat lay mës a nekk te contrat yooyu yëpp danañ ko xoolaat ak effet effet rétroactif bés bu bés bu ñu soppee loi yi parce que Sénégal il faut mu gis boppam ci moomeelam ci lu mu am. Mm-hmm. noonu la demee ci phosphate bi noonu la demee ci or bi noonu la demee ci pétrole bi gaz bi noonu la demee ci ressources yëpp te loolu colonisation bu doy doy waar la boo xam dafa sukkandiku ci suñu ay ay texte de référence maanaam ci euh, loi yi ñuy voté assemblée nationale. jërëjëf Clédor Sène amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tay bi waxtu wi dab nañu kon fii la ñu yemale waxtaan wi fàttali ni yow yaa jiite mouvement Claire Vision gindi askan wi waxtaan wi tam mën nañu kaa teewluwaat ci réew mi point com ak réew mi officiel suñu chaîne ci YouTube jërëjëf Clédor Sène jërëjëf